ndakaaru xëyul xëy neex. Mm-hmm. bi nga nee cëpp ndakaaru xamoo noonu kuy Fallou Dieng wala xamoon nga kuy Fallou Dieng. non bi ma ne cëpp ndakaaru moom laay wax euh, ba ma bi ma cëpp ndakaaru boobu Fallou daan naa ko dégg nii quoi daan naa ko dégg mais xamante woon maa ngi koy wax ci benn euh, waxtaan ma ne bi may bi may ñëw benn waay bu ñuy wax Pape Ndione moo ñëw Kaolack fekk ma fa ma joué affaire bi intéressé ko trop mu xool ma ne ma booy daal bu ma sañoon. di nga ñëw dakaar nga ñëw Sorano ñu auditionné la parce que yow ni ma la gisee nii war ngaa mën a am place Sorano bi may dem ci yoon bi xam nga nit ci yoon lu ne la ciy feeñ bi may dem ci yoon bi man xaw ma sax ne foofu mooy cosaan bi dem ci yoon bi laa dajeeg benn kaaro sotraak yu njëkk yooyu mu bëgg maa mbëkk mbedd mi ñëpp yuuxu boobu maa ngi nekk xal nag maa ngi takk sama ndigg bi waaw boo ma gisee maa ngi solo ay sàncaak ak ak setin bi mu ngi tàng jër ma wàcc rasay gars yi gi ma rek toj. ñu gis nga xam ne kii artiste la. xam amee booy kaay. gars yi nag buntu cosaan ñu ne ma ñëwal toog. bi ma yegsee. ñu ree ree ree man affaire bi jaaxal ma ma lan la ñuy ree man maa ngi tiit oto bi mu bëgg maa rey maa ngi affaire bi ngi génnagul sama ñu nekk fii di ree quoi. ñu ne may mais booy foo dëkk man la man Kaolack laa dëkk tegal leen lépp. ñu ne ma léegi dëkk booy bi toog nii day woy fekk na Ablaye Mbaye la woon Ablaye Mbaye tamit nekk xale ma ne waay booy bi fu muy woyee mu ne mu léegi booy bi day woy nga bu wooyee yow taasu yow booy loo man man mën naa taasu mën naa tëgg ñu ne ma léegi léegi da taasu booy woy ñu nekk ñu teg ñu noo maak Ablaye Mbaye Ablaye Mbaye di di woy may taasu ba gars yi toog na ah vraiment ñaari booy yi nag leen boole dina intéressant trop léegi dañuy def fii soirée ak Fallou Dieng il faut nga ñëw yow il faut nga ñëw jox ma date bi bindal ma ko booba xale laa bi ma demee suñ suñ biir kër li a def mooy damaa wut këriñ dem ba ci wetu waañ bi bind le 23 octobre. jàpp date bi saa yu ma yeewoo woo sama benn sama benn waaw sama benn jigéen nag waa mais xadi mu ne waa ko tey la lan mu ma bés bi nga wax ñëwagul bàyyil bu jëwee rek dinaa la wax rek sa may koy calculer calculer ba ba ma dem te keroog maa njëkk a maa maa njëkk a ñëw ci buntu cosaan bi ma ñëw gars yi di dugg di dugg di dugg di dugg ba affaire mu leer ma ne gars yi nag ñoo ngi baal lii nag nekkatul dugg egg eh, digg bu naturel gars yi fàtte na léegi ma ne gaa ma ma ma xuus utali porte bi gars yi téye ma biñ ma téye ma ne la Abdalaay ak Laay Goote ñoo ma invité ci biir quoi ñu ne ma noo booy xaaral ñu dem woo Abdalaay na ko booy bi dafa am benn booy bu nekk fii nee na yaa ko invité Laay bi mu ñëwee ne leen wax na dëgg maa ko invité ma dugg. bi ma duggee soirée baa ngi jax jax goo xam ne. keroog nag boobu nag <laughs> boobu boobu tubay jama sol nag moom wax dëggal tubay ji rëy na rëy joo xam ne maa ngi sol maa ngi koy fàttaliku tubay njaxas laa sol ak ak ak kii nu tuddati euh, euh, may ok yooyu fi xewoon perforé yooyu moom yooyu moom laa sol bi ma ñëwee. tim yi tim yi maa ngi ko solee tim ya maa ngi ko solee ca ndogal du wees ba xale bi la bàyyil tooñ palaa solee tim ya ndeysaan bi ma bi ma ñëwee so son bi ma njëkk a yéeg mu ngi tuddoon mën-mën benn son Fallou Dieng bu tudd mën-mën def loo man wax loo man yaay boo tëddee nelaw bi ma siifee ñëw doxal ah gars yi yuux may wax Fallou Fallou ne ma nii boobu nag billet deux mille cinq yu njëkk yooyu fi xewoon waaye bi mu ne ma ko nii ma xool muy deux mille ma ne moo way ma kalaat beneen grand nii ma ne ah ndakaaru ngi bëgg a neex nag man nag boo moytuwul dinaa <laughs> Kaolack dinañ ma gëj a gis waaye affaire bi daal yàlla def bi may wàcc kaw seen bi poos bi fees na dell del del del na matuma dara ah ma ne fii daal na tagu ñom lay daw ñibi kër ga bala ma gaay yi di kar bi bima bima ma bay dem nonu ndaysan fallu ci la yoni ben way waji ñew di ma téye ma ma bañ ma defé na agresseur la ma bañ ndax sama mam moma da wax ne Dakar dafa am ay ak dog bop ma way ma bañ ñu xëccionté bi fofu non ba gaay ne way bu sa way bayil ki mu ne fallo ko wo ba ndaysan ma dem yek gisanteeg Fallou après nag waxtaan ak moom ñu njëkk a def maak moom tournée Banjul laa njëkk ànd ak Fallou ñu ànd tamit foofu tamit neex lool ñu ànd fa defaat ay yeneen programme ay Kaolack ak yeneen dëkk affaire yi neex lool ma ne gars yi daal dégg ngeen xam nga lan la Moussa mbay ak Moussa Jong ak madame Jabon dinañ ma gëj a gis <laughs> waaye bi laay ma toog quelques heures dégg ñu naan sa papa woote na ne école li ci des mu ubbi bëreetul <laughs> ma ne waaye paa bi nag dara naa ubbi ay de ndax fii moom mban fi mu toll nii maa ngi commencé fayu te fayu rek laa bëgg jàng moom fayu nga bëgg te maa ngi tàmbalee fayu.